li ngeen dugal nii euh, lan ngeen ciy xaar. concrètement ñu taxawal processus électoral bi. arrêté ko arrêté ko. lañ ciy xaar est-ce pas léger pour l'arrêter parce que nee nañu élection yi ñaar ko mën a arrêté. kenn faatu ñaanu ma ko yàlla. wala euh, mu am blocage crise institutionnelle. mais crise institutionnelle lañ jëm parce que ñun li ñu am buñ ko tegee ci ci commission bi dinañ xam ne am na institution boo xam ne amatul sa amatul. Euh, crédibilité amatul crédibilité pour nekk fi. muy conseil constitutionnel muy conseil constitutionnel parce que ñi ko récusé dafa bari. 41 candidats yëpp a ko récusé ñun ñu ñëw bo bokk ci loolu yamuñu ci loolu. Moodu sëñ mm-hmm. Moodu ñu waxtaan tey conseil constitutionnel xoolal euh, réew mi coow yi fi mës a am yëpp. daanaka conseil constitutionnel la wax léegi nag. mais le conseil. ñun ñun dañuy demander Pastef ay jamono dañoo accusé le conseil. mais tey ñu ngi nii di di di di wax le contraire xam nga sama mbokk waa Pastef yi tey assemblée nationale sax affaire bi daf ma daf ma def ay ree su ma gisee su ma déggee ñu ne avocat Ousmane Sonko yi. oui mais Bamba Cissé. ñoom ñoo dem taxaw tey di défendre conseil constitutionnel euh, affaire bi dafa may def ay ree xam nga euh, ba ñu démb suñu nangoo tey rek seen i pexe jubul loolu la wolof wax. lu ma ci mën a comprendre man. bañi démb. oui dégg a. ñu nangoo démb bu ñu nangoo tey rek seen i pexe jubul loolu nag ci kanam ngay comprendre dama la koo cax. ndax commencé nañu ils sont ñoom tamit. tout le monde fi monde lañ jàpp ne ils sont impliqués ñi ñu jàpp ne impliqué nañ leen ñëpp heure bu liggéey bi paree diñ kiw dinañ ko gis mais léegi dama bëgg ñu avancer tuuti ci ci conseil constitutionnel. Mhm. xam nga tey ñun li ñuy demander mooy que ñu dissoudre conseil constitutionnel. parce que ñun jàpp nañ ni conseil constitutionnel n'est plus. kan moo war a jël boobu responsabilité. mais le président Macky Sall. le gardien le gardien de la constitution te nag gis nga Modou. loolu dama ci bëgg a def benn focus. oui le président Macky Sall tey ñun dañ koy demander solennellement si njekk mhm. si njekk rek. waaw loolu loolu la bëgg moom. waaw dañ koy demander si njekk mu toogaat ci réew mi tuuti. ñun ñoo ko koy demander ñun wax loolu. ñun PDS ak ñun classe politique bi ak ak. ak ak sénégalais yëpp yi nga xam ne non mënuma comprendre loolu. Eh, sénégalais ba bu ma bu ma expliquer bu ma expliquer dinga nga comprendre si njekk lañ ko koy ñaan xam nga lu tax tey ki war a arbitrer élection yi ñun jàpp nañ ni nekkatul arbitre bu valable xam nga ne arbitre bi arbitré woon Sénégal Gabon. bu ñu xamoon ne nii nii lay Sénégal Côte d'Ivoire. Gabon boobu xam nga bu xamoon ne nii lañ def sénégalais yi dinañ taxaw ne duñ ko arbitrer dëgg loolu du dëgg. loolu nag moo ñu daal ci conseil constitutionnel ñun fi mu toll nii dañoo ne nañ taxaw moom d' accord mu nekk ci arbitre ju benn élection te ci lii nii période nii ñu nekkee. mais loolu kon moo nar a indi. crise président bu ci parce bu leen déggee tas conseil constitutionnel. président mu yëf yi arrêté na taxaw na mais c' justement ce qu' on suñu candidat Karim ba affaire bi jàllee rek la daal di def suite. ne il il remercie député yëpp ñu voté ak ñi voté wul ñëpp léegi nag prochain combat bi mooy la report de la présidentielle te loolu c'est un impératif. mais pourquoi souhaitez-vous ce report parce que réew mi parce que réew mi moo ci toll. xam nga 2019 kale nañ suñu candidat. Mm-hmm. nous sommes restés dignes. mais fi ñu toll nii dañ jàpp ni réew mi toll na foo xam ne il faut président Macky Sall téyewaat yëf yi. ndax réew mi jaxasoo na conseil constitutionnel. c'est le PDS qui dit ça. c'est le PDS qui dit ça conseil jaxase na yëf yi ñun on demande au président Macky Sall si njëkk na teewaat yëf yi. est-ce qu'il a ce pouvoir. dissoudre bien sûr c'est le gardien de la constitution les pouvoirs du président de la république sont illimités am na sax soo demee ci constitution bi fu ñuy tuddee article cinquante deux. dama koy bañ a dama koy bañ a wax ñu ne. waa waa PDS yaa ngay kii. non kii di quoi mooy les pouvoirs exceptionnels du président de la république en cas de crise exceptionnelle te tey jii mënuñu wax ne quand l'exécutif quand le législatif ak le judiciaire se heurtent loolu mënul weesu mënul weesu tey. crise euh, institutionnelle parce que ñoom ñoom ñoom ils ont dit clairement ñoom ils ont dit clairement que ñoom duñu duñu répondre ci benn benn commission d'enquête ils sont pas obligés non Modou c'est justement faux parce que tey kan la justice est rendue au nom du peuple kan mooy le peuple à l'Assemblée nationale article 3 de la Constitution nee nañ le peuple est souverain ah et il exerce ses pouvoirs à travers ses représentants ñan ñooy les représentants du peuple kon tey personne n'est au-dessus des pour que députés yi woo la nga bañ ne duma ma ñëw ñoom bu ñu bañee ñëw foofu la blocage bi nar a am bu ñëw blocage am na léegi nag euh, ku moom xar mi nga bàyyi buum bi su boobaa le président de la République encore une fois ñu koy demander di ko souhaiter le report des élections mu jël la plénitude de ses pouvoirs toogaat combien de temps quitte à ce que dissoudre conseil constitutionnel loolu c'est à définir ensemble nous allons sûrement vers beneen dialogue ñu toog waxtaan parce que réew nag il faut ñu waxtaanee ko mun a élection yoo xam ne Karim Wade bokkul ak ak PDS li mu représenté mun a organiser élection yoo xam ne Ousmane Sonko bokkul ak li mu représenté loolu mun ta nekk munoo a ay élection yoo xam ne dañ naan la vingt candidats moo am te te ñu amoon fi problème yooyu ba ñu ne léegi mën nga ñëw jël cinq cinq fois mais on parle de l' élection présidentielle on parle de la rencontre d'un homme avec le peuple loolu dafa sérieux si ñun moo tax dañ koy demander solennellement la position du PDS est très claire le report des élections loolu moom dañ. léegi après report élections yi lan lañ lan lañu war a def. mais toog. waxtaan yaa ngi koy wax léegi. ubbi reprendre processus bi reprendre processus ñëpp ñëwaat. ñu reprendre à zéro dellu ginnaaw. waaw coow loolu kii. pression yi du am du am coow. parce que euh, coow lee fi nekk nii rek mais kenn parewul ah. kenn pare wu candidat yi pare wuñ candidat yi pare candidat yi jàll candidat yi jàll pare wuñ candidat yi jàllul candidat yi jàll pare wuñ candidat yi jàllul pare waxal réew mi fi toll nii ku ñun ay acteurs politiques lañ xam nga nekkuñu Mauritanie nekkuñu Mali Sénégal lañ nekk te on se connaît ne ñun suñ biir léegi li xew nag moom mooy nañu reporter élection yi nañ kalmos bal à terre teg bal bi ci suuf qu'est-ce qui empêche à votre non il il il le mène. parce non, que initiative de, de loin. initiative yi ñu de pouvoir ngeen xeexal initiative yi ñu jël yëpp moom moo koy mëne xam nga contrairement à ce que ce que pensent certains. Mm -hmm. ou une partie des sénégalais Karim est bien présent lépp lu ñuy def. maa ngi nuyu notre frère secrétaire général maître Abdoulaye Wade ñoom ñaar ñoo koy proner ak l'ensemble du parti Karim est très présent te gis nga conviction bi mu am ci Sénégal. Mhm. man bu nekkoon ci condition mu nekk. man du ma ko duma ko am dëgg moo neex yàlla mais moom condition yow mu nekk bëgg bàyyi loolu yëpp pour ñëw Sénégal c'est cela veut dire que moom am na yéene pour réew mi am na lu mu soxla pour réew mi vraiment kooku daal dañuy ñaan ñu revenir lépp tegaat lépp ci suuf and créé waat processus électoral bu bees dindi lépp fichier bi ñu naan am na neuf cent mille électeurs ñu ñu refonte ko ñu refonte ko mhm. créé fichier bu bees tàq nit ñi mën ci accéder mën a dem ci ay élections yu libre et transparente mais ci conditions yi kuñ fal sax nekk président nii rek